منفذ جنة سهت رب البرية البدن سهت رب البرية البدن أصحبت قبل من قلوني بددا فديتني فديتني فديتني أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدود عما سن أو فرضا بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا بكي جلدي بكي طالبي بكي ريومي أكبتم ريويب في في واي مانا جاكر في سين تيفيون تو تيفي leen ndokkeel bu baax weeru safar wi nga xam ne mooy weeru sëriñ bi di weer wi nga xam ne ci lañu sëriñ bi jox ndigal lu mag lu mag lu rëy loolu nga xam ne mooy fàttaliku keroog bi muy jógee Mbàkke Bari jëm ca réew yu sore ya nga xam ne fa lañ ko yóbbu woon ngir tumuraankeel ko te ña ko doon yóbbu jàpp ne kii ñu yóbbu kat ab prisonnier la waaye moom ci boppam mu xamal ñu ne dafa demone ngir liggéeyal yonente bi ak it lo xamne ci diggam ak boromam lu mu signé won ak mom la te lu mu mënutoon a ñàkk am la te ba muy demit and ak sahaba yi and ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko waxe ci ne rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina adur kon lolu moy 18 safar gi nga xamne mom lañuy wajale seen jotay yu am solo yi di ca dalal ay woromi xam-xam ci fànn yu wuté ay kat ak bind kat ak i kat lepp rek luy jëmele kanam liggéey sëriñ bi nga xamné ne ndono li mu ñu ci nonu tay nak ci lañu dalal kenn ci kangam yi muy sëriñ hamidun bakke di setup sëriñ hamidun mom sëriñ modou mamoun mom mam Cheikh Anta kon doomi sëriñ Sidi loolu rek doy na sëkk ci xamle mooy kan ndax euh, fu ñu tuddee jëmm toftal ca sant wi am na lu ñuy séenu ci moom waaye moom nag ndokk ba loolu ñuy séenu sunu borom def na ko ci kon dañuy tàmbalee sunuy kàddu ci sëriñ Hamidun nga xam ne bindkat la di koo xam ne it xam-xamam ba tey mi ngi jëm ci wàllu finance ak digital mu nekk fële ca bitim réew di particulièrement ca Paris ca biir France foofa la nekk fa lay yëngu fa lay liggéeye liggéeyam nag euh, weesu wut ñaar yi nga xam ne rek moom la ñu sëriñ bi dénk mooy lu jëm ci wàllu luy yéwénal sa nekkuk tey nekkuk tey goo xam ne danga ci sàkku ëllëg kon ci ñaar yooyu rek ci lay yëngu mooy talabul xalaal nañ ko xamee ak it gëssoom gëstu yoo xam ne lépp day jëm ci wooteb sëriñ bi ngir di ko leeral nga xam ne mënees na ko tuddee missionnaire wala message boo xam ne day représenter sëriñ bu mag bi foofee mu nekk ca Paris di yokk diina ji di dugal nit ñi ci lislaam di bind tamit loo xam ne luy dëgëral lislaam la ak yoonu murit rawatina njàngaleem sëriñ bu mag bi mu jotee bind ay articles yoo xam ne kuy naviguer ci euh, réseau yi di nga di nga ko gis bu baax a baax waaye rawatina téere mi nga xam ne saa su ne it mi ngi koy bind te bii ñu yor nga xam ne mi ngi ko tuddee Cheikh Ahmadou Bamba de la des frontières mu jëm ci wàllu universalisation wala boog universalité du message de Cheikh Ahmadul Khadim maanaam nees di def ba wooteb sëriñ bii ak njàngale mii doon lu lëmbe àdduna sépp ba ñëpp jot ci te man koo jariñoo moo xam waaso woo mën a bokk wala réew moo mën a dëkk wala nationalité boo mën a am kon loolu jagleel na ko téere boo xam ne ci loolu la jëm mu sukkandikoo ko nag ci ay expérience yoo xam ne yu mu dund la ak it njàngale yi nga xam ne it sëriñ bi bàyyi na ko fi yooyu rek moo nekk ci biir téere bi te lu jiitu loolu it bindoon na téere boo xam ne mi ngi ko bind ci yaatal liggéeyu maam Cheikh Anta ak xam xamal ñu mooy kan ndax day baax lool sëriñ bi ñuy xam ñi àndoon ak ñoom ñi àndoon ak moom sëriñ bi la sëriñ bi def ci ñoom ba tubaab ba doon seede ci sëriñ bi di wax ne moom dafa mel ne day créer ay Ahmadou Bamba kenn ci Ahmadou bàmba yoon nag di maam Cheikh Anta mi nga xam ne mooy maamam bind na téere boo xam ne moom la ko jagleel tuddee ko maam Cheikh Anta grand militant de la fois et du travail boobu it téere bu amoon solo la boo xam ne ku ne gis na ko ci at yee ak njariñ li nga xam ne ak yokk gi nga xam ne defal nañu ko ci dunduk maam Cheikh ci aw askanam ci gane àddunaam ci digganteem ak sëñ bi mission bi mu amoon ci yoonu murit ginnaaw sëñ bi it jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ko tubaab bi ak nam nam leen jéggalee nga xam ne day dafa yor parcours boo xam ne day mel ne boo ko méngaleeg dunduk sëñ bi daanaka sëñ bi daf koo rafaatalee ca li nga xam ne loolu la loolu la dajoon kon lu boobu téere bu am solo la waaye nag ginnaaw jot gi mayewut xëy na dugg ci yëpp dañuy daal di tënku rek ci tomb bi nga xam ne moo jëm ci wàllu universalité maanaam yaatal njàngaleem Cheikh Ahmadul Khadim ci mbooleem mu génn frontières yi maanaam débaoliser le message de Cheikh Ahmadou Bamba kon loolu ci lañ fas yéene waxtaan ñu sukkandikoo ko nag ci téere bi nga xam ne sëñ Xaamidun bind na ko kon sëriñ bi dañ lay nuyu di la ziyaare di la ndokkeel bu baax ci weer wi ndax ku dëkk Daaru Salaam moom ñëpp am nañ cër ci màggal gi waaye waa Daaru Salaam it mm-hmm. am nañ ci cër boo xam ne it bu bu la mm-hmm. ndax sëriñ bi da koo tudd ginnaaw sëriñ bi cant la ñu woo mhm. waaye dafa wax ne it maa ngi sant yàlla wala dinaa sant yàlla wala am mhm. naa yéene sant yàlla mhm. ci daaru salaam ak Touba nawaytu sukrahu la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam boole ceeg daaru salaam googu sëñ bi mi ngi ko sanc ci bis bii ñuy fàttaliku 18 safar ji kon ñoom am nañ ci cër boo xam ne dañ leen di jagleel am nuyoo akub ziar di ñaanal mbooleem njabootuk maam Cheikh Anta gi fi nekk wéyal tamit seen yéene yi nga xam ne moom lañu am ci yaatal lislaam di ko jaarale ci sunu xarit sunu mbokk sëriñ Hamidun kon sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi bismillah waaw jërëjëf sëriñ Jili euh, ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci télévision bi nga xam ne moo di Touba TV euh, moo xam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen ndokkeel ci weeru sell wi nga xam ne ci lañ nekk muy weeru safar di weer wi nga xam ne euh, mboolem liñ am ci Sëriñ Tuubaa rek ci euh, tukkeem bu bu bu bu mag boobu tukkeem bu rëy boobu ci lañ ko ci lañ ko amee kon nag euh, weeru jullit yëpp la waaye weeru muri murit yëpp la kon ñu ngi ci ndokkeel ñëpp di ñaan mboolem liñ ci jaamu yàlla ak mboolem liñ ci xidmaal sëriñ bi rek sëriñ bi nangu ko hmm. jërëjëf macha allah sëriñ Hamidou kon dañuy daal di dugg ci waxtaan wi rek ci li nga xam ne mooy euh, message universel bi nga xam ne moom la sëriñ bi bind wala boog moom la fi sëriñ bi indi te muy lislaam joo xam ne da koo yeesal yeesal ci sunna mu doon loo xam ne moom boo ko teewloo dangay gis ne kuy wax ak àdduna la waaye nag xëy na li tubaab naan barrière linguistique léeg-léeg mm. mu tënkuñu mm. ak it ñàkk comprendre mission bi léeg-léeg mu tënkuñu ba ñun dañ koy yemale mm. diggante kajoor ak bawal rek mm. ñi nga xam ne sax dañuy dem bitim réew mm. bitim réew la plupart yëf yi lu yaatu yaatu yaatu gi du ñu génn mu mel na nag yow am nga ci gis yin woo xam ne ak def ci démarche yi yu am am am solo ci loolu nga xam ne mooy le message du Cheikh Ahmadou Bamba euh, nga xam ne dañoo jàpp ne xëy ndax yow man dafa war a dafa war a yaatu dafa war a daj àdduna mm. maanaam vocation bi nga xam ne vocation universelle boobu nga xam ne mm. jàpp nga ne mm. message bi ndax am na ko wala wala niñ koy defee nii rek baax na waaw waaw jërëjëf sëñ ji euh, posé nga question bu am solo mm-hmm. waaye jàpp naa ne sax ab pàcc ci ci tontu bi indi nga ko bi ngay wax léegi ci ne ñu bari ci suñu mbokki murid yi dañoo bëgg a euh, bawaliser mbir mi Euh, maa ngi koy maa ngi ciy laf sax wala fisa li may wooyee ci. Euh, ci téere bi la wolofisation de la confrérie mouride. def ko rek muy yëfi wolof. yëfi wolof kese kese. mu ngi effectivement. waaw nga xam ne day tënku ci sol caaya. voilà wax wolof làkk. mi ngi noonu mi ngi noonu mu ngi noonu nga xam ne ñu bëri ci suñu mbokki murid yi mel ne ñoom seen gis-gis ci yoonu murid foofu rek la yem. nga xam ne buñ xëyoon sax gis ab tubaab bu nekk murid wala tubaab bu sol euh, baylaat wala wala caaya rek bay tàmbalee nekk lu mel ne événement. Euh, te Serigne Touba boo euh, déggee ja euh, maanaam boo déggee am jàngaleem dëgg wala nga jàngat ko dëgg dañuy gis ne àdduna bépp ko taxoon a jóg ndax wax nga ko léegi ci ne moom dafa ñëw ngir yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko mu leer lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatul gharra wa inni ahmadu mhm. xam ne yeesal sunna si yonent bi sallallahu moo ko taxoon a jóg te yonent bi sallallahu ku ne xam na ne message am vocation universelle la am ndax suñ borom ci alcorane mi ngi ak moom naan ko ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi bashiran wa nazira dama lay yónni ci mbooleem nit ñi ci ci àdduna mbooleem bindee fi jox la ab message waaye ngir nga bëggalaate ngir nga bëggalaate ak ngir nga xuppaate kon na gis ne kon Euh, message bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam porté woon vocation universelle la am mhm. loolu suñ borom ma ko wax ci alxuraan kon suñ Tuubaa mi nga xam ne dafa ñëw ngir yeesal message boobu ngir yeesal na soosu mhm. te suñ sun sunna soosu nekkoon lu universel kon dañuy jàpp ne moom suñ Tuubaa lu universel la ñu mhm. message bu universel lay doon euh, moo tax mu wax ko mu leer Euh, ba muy woot ba muy woo sax waa géej gépp la woo ak waa waa jéeri gépp yaa ahla barri yaa ahla bahri xam ne mooy wama arsalnaaka illaa mi ngi mm-hmm. noonu nga xam ne kaafatan googu mooy mm-hmm. yaa ahla barri ak ahla bahri mm-hmm. euh, mu bind ko mu leer mu doxale ko mu leer waaye euh, boo jëlee rek misaal ci conversation bu siiw boobu nga xam ne moom la doon def ak gouverneur général de Diourbel laaj yi ko doon laaj laaj yooyu mu ko doon laaj nga xam ne matoon na 18 questions

al imaanu bi tawxid wal islam bil fiqhi wal ihsaanu bi tasawuf kon dañuy gis ne euh, yoonu murid moom génnut lislaam génnut lislaam maanaam lislaam la lislaam di leer maanaam ba boolee imaan ak islaam ak ihsaan rek moom ab murid ndax bi jibril ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam effectivement di ko laaj lan mooy hmm. imaan lan mooy islaam lan mooy ihsaan voilà mi ngi noonu nga xam ne moom ñett yooyu génn tënkaat yoon waaw loolu nag day day day sous-entendre hmm. ndax boo génnee fii rek boo dépassé tuuti frontières yi da ngay gis ay tubaab yoo xam ne euh, impression bi ñu am ci yoonu murit mooy dañ koy jàpp ab culture ndax man personnellement ab tubaab mas na ma laaj ndax yoonu murit ab culture la euh, am na ñoo xam ne moom lañ ciy déggee mooy dañuy gis murid yi nii rek jàpp ne seen yoonu bopp lañ yor maanaam euh, confrère de apart la boo xam ne lislaam la daal effectivement xamul ne lislaam la kon Sëñ Tuubaa day jaar ñu leeral ne lislaam ju mat sëkk maanaam li mooy wooyee alxuraan ak sunna authentique maanaam joo xam ne waxut dara ndax bim ko laaje ñan ñoy jullit ñi mm. wala ñan ñoy mouride yi Sëñ da ko tontu ne ko al wal muslimun muslimuuna muhsinun mm. kon ñatt yoy kep ku ci tanku rek ak fo mën a nekk ci aduna mm-hmm. ab mouride nga bi ko laaje fu mouride yi da dana ko fep fo xamne ñu fay pratiquer yoy rek fep fu ñuy pratiquer l'islam rek l'islam rek mm. ab ab ak fa kon kep kuy jullit rek mouride nga kep kuy jullit rek ab mouride nga kon Sëñ Tuubaa mom mbiram du lu ñuy tënk rek ci mbiru tariixa wala Touba wala bawar wala senegal waye Sëñ Tuubaa aduna euh, bepp ko taxajuk ba ci mbindam sax da ngay gis ne mënoon naa bind ci wolof Sëñ Tuubaa mbindam mënoon na ko bind ci wolof waaye da ngay gis ne ci arab la ko bind kon wolof yi rek taxuñ koo jóg ak waa Sénégal. waaw ah, kon nga xam ne le que mu choisir benn ci langue universelle yi. waaw effectivement loolu day wane ne kon bëgg na. Hmm. am njàngaleem yaatu. bëgg na am njàngaleem ndax euh, arabe yi boo xoolee ñu ngi représenté environ 40 pour cent. Hmm. ci population mondiale. kon da ngay gis ne euh, cible moom maanaam mi ngi ciblé 40 pour cent yooyu déjà. waaw ah, kon nak mom comme mom tambalé na xeyna li ci dess moy li ma indi ci e chapitre ak 4e chapitre ñun ban taxaway lañ wara am ci li nga xamne mom lañu suñu tuba suñ ñu yokk ko bam bam bam yaatu ba mhm. ci aduna bi mhm. waye dal lima doon leral fofu moy kon suñu tuba aduna bépp ko tax a mhm. lolu amna solo legi bu fekke aduna bépp ko tax a hmm. message bobu lan la mëna apporter aduna bi wa message bobu li mëna apporter aduna bari na ndax dama wax ne ñun mouride yi

ñëpp tënku tënku nañ ci ne lii valeur universelle la àdduna bépp ko bokk te valeur universelle yooyu boo ci jël rek da gis ne Sëñ Tuubaa jiitu na ci waa àdduna te àdduna àdduna soxla hmm. jël misaal non violence non violence eh, biñ ko commencé di conceptualiser ak di jël ay nit di leen eh, considérer comme les symboles de la non violence loolu fekk na Sëñ Tuubaa jiitu leen ci ndax eh, boo nee symbole de la non violence rek xale bi mujjee juddu boo demoon France hmm. wala Angleterre ci misaal boo ne ko kan mooy symbole de la non violence xelam du dem ci kenn ku dul Mahatma Gandhi wala Martin Luther King wala euh, ku mel ne euh, euh, may leeral na yooyu ñuy wooye loo loolu nga xam ne valeur universelle la te jàpp nañ ay nit ne ñoo ñoo ñoo ko ñoo ñoo ko njëkk a jëmmal wane naa ne Sëriñ Tuubaa moo leen jiitu te loolu àdduna bépp ko soxla ndax boo jëlee ku mel ne Mahatma Gandhi mooy seen jàpp nañ comme symbole de la non violence moo wane ne Sëriñ moo ko jiitu ci jëmmal non violence ñaareel ba tamit mooy amutoon beneen choix moom bu dut bu dut jëmmal non bu dut utiliser non violence amutoon doole daal amutoon doole ci li Sëriñ Tuubaa amoon te moom amoon na possibilité utiliser arme ndax euh, sur le plan matériel mm-hmm, mm-hmm. mënoon na koo am mm-hmm. sur le plan humain humain tamit amoon na ñu ko wër ñoo xam ne xëy na bu. te demoon na ba jekku leen demoon na ba jekku leen effectivement. demoon na ba jekku leen te boo xoolee ñu ko jiitu euh, jihaad ñëpp kenn ku ci ne amul ci kenn koo xam ne ëppoon na nga Sëriñ ba mbooloo. du du du Mabba du du du. Mm-hmm. Eh, ñooñu nga xam ne El Hadj Omar ñooñu nga xam ne dañ a jàppee comme ñoo xam ne. Mm-hmm. dañ doon jaxaat waaye Sëriñ Tuubaa moom dafa ñëw woote non violence. beneen bi tamit ñoo ñuy woowee les symboles de la non violence violence mooy mu jëlee. Mm-hmm. boo jëlee ku mel ne Mahatma Gandhi Gandhi ñu ko assassiné ci atum 1948. Eh, ci avril 1948 benn benn euh, opposant moo ko rey. ku ñu woowee ne Trump Godzu. boo jëlee ku mel ne Martin Luther King tamit moom

taal ay bomb ak di ko def di ko def au nom de l'islam mhm. adduna bépp xam ne tey ci jàmm soxla nañ ko ngir nit ñi mën a mën a dëkk ci jàmm ak vivre ensemble boobu mhm. loolu valeur universelle la boo xam ne adduna bépp ko soxla te Sëriñ Tuubaa moo ko njëkk a jëmmal beneen bi tamit euh, li ñuy woowee humanisme tey humanisme ku ne xam ne ne valeur universelle la mhm. ndax euh, tubaab yi boo xoolee seen dernier sommet yi ñuy def yëpp wala seen débat yi ñuy def yëpp boo xoolee li nekk au restaurer euh, la dignité humaine. l'humanisme mooy mettre l'humain au centre des préoccupations naka la ñuy def ba lu ñuy def daal ñu jiital ci nit nit jëm boppam. daanaka wala xadd karam naa la ñuy ne la. wala xadd karam naa bani aadama mm-hmm. waaw effectivement. wala xadd karam naa bani aadama xam ne daanaka finalité mooy loolu waaye sauf que ñun suñu humanisme mooy xidma. Mm-hmm. Euh, finalité bi mooy jaamu yàlla. Ah, maanaam yéene yee bokkut. yéene yee bokkut effectivement maanaam boo xoolee feey benn la waaye yéene yee bokkut. Mm-hmm, Sëñ Tuubaa dafa woote xidma. ngir jaamu yàlla maanaam jaamu yàlla jaar la ko ci nit ñi ñoom nag dañuy xëy dañuy dañuy humanisme rek pour humanisme mhm. maanaam liggéeyal nit rek juste pour pour liggéeyal nit te loolu valeur universelle bu bu mag la tey jii boo xoolee eh, fu mel ne France boo fa demee eh, ci misaal transport bi bu kenn amee malaise rek ci transport dañuy obligé arrêté lépp arrêté lépp waaw ndax dañ naan eh, nit moom moo ëpp solo lépp nga xam ne loolu mën nañoo arrêté lépp pendant trente minutes juste pour dem xool ki am malaise euh, war koo fajaat ngir ngir indiwaat ko su ko defee bu demee ba ba ba faj ko wala jël ko en ba pare. transport bi soog reprendre. nga xam ne loolu dañ koy def ci cadre humanisme. waaw nag moo wane ne loolu ba léegi universel la waaye suñu tubaab moo leen ci jiitu. waaye nag ci ci xitma. Mhm. ak yeneen ak yeneen lu ci mel ne tolérance nga xam ne moom waxu waxuma rek théorise gu mu ko théorise. waaye da koo da koo da koo subir da koo dund. da koo dund mhm. ba noppi daal koy jëfee. ci ñi nga xam ne ñoo bokkutoon ak ñoom diine sax wala bokkutoon ak ñoom ay jëmukaay sax da ngay gis ne suñ Tuubaa bu leen waroon bu leen waree dimbale da leen dimbale gis nga téeméeri junni yooyu mu joxoon doon war ci colonie di def appel à contribution hmm. Sëñ Tuubaa daal di yëkkati téeméeri junni daal leen koy dimbale nga xam ne loolu ça représente 17 pour cent de la contribution nationale maanaam un sixième bu la euh, Sénégal li ñu joxe woon lépp ñu ngi koy xayma ci ñetti millions. Mm-hmm. téeméeri junni yi da koy Sëriñ Tuubaa. Sëriñ bi la jógee macha allah. te pourtant mënoon na ne ah ñi bokkuma ak ñoom diine wala bokkuma ak ñoom réew waaye da ngay gis ne bu waree dimbale ku mu bokkalul sax. Mm-hmm. da koy dimbale. Mm-hmm. bu waree dimbale ki mu bokkal tamit da koy dimbale gis nga Arabie Saoudite. bañ nekkee ñoom it seen crise bu ah, métti boobu. ne woon euh, lettre Sëriñ Tuubaa ngi Sëriñ Tuubaa dimbale leen. Sëriñ Tuubaa yëkkati ba bi crise bi jeexee ñu bindaat lettre Sëriñ Tuubaa ngeen di ko gërëm lettre ba defe naa mm-hmm. euh, xëy na ñu bari ñu ngi koy gis yenn saa yi muy circulé ak yooyu mm-hmm. am na tolérance boobu tey adduna soxla na ko tey ji ndax boo demee fu mel ne euh, am na yenn dëkk yoo xam ne jullit ñi xajoowuñ ak ak ak ay jullit mm-hmm. wala nga gis dem ci dëkk yoo xam ne ay guerre ethnie yi bari na guerre ethnique yi wala ak guerre civile nga xam ne ñii xajoowuñ ak ñii waaye Sëriñ Tuubaa moom jàngal nañu foofu même ki nga xeet ki nga bokkulut diine ki nga war ngaa mën a xajoog moom bu taxawee bu nekkee ci ay jafe-jafe nga jappale ko nga xam ne moom waraa googu nga xam ne doon ñëw suluwaati mbindam mm-hmm. irham jami al wara mm-hmm. moom da ngay gis na mom doxalon jëmmal na ko pratiqué na ko ba ñepp teg seen bët mm-hmm. maanaam kon res na ci déggee ne rek mm. message bobu kon man na apporter aduna bi mm. liñ teunk ne moy les valeurs universelles mm. señ bi mom amna ci yu gëna riche amna lolu ba nopi am ci yu gëna riche surtout am mom sax bi ci ëpp solo moy lo xamne ne yéene jëkkalal sax effectivement mo gëna baxati baaxati voilà kon day mel ñun war nañuy gën di bàyyi xel les valeurs universelles yooyu nga xam ne mhm. mooy yu sëriñ bi mhm. ñu di ko fesal mhm. ci làkku man di doon boo xam ne wu ñuy jëfandikoo ci àdduna bi la rek ba ñu xam ne kat kii kat ndeke yow boo dem jullit la ngay wuti ca diw wala ca diw ndekete kii am na ci am na ci lu lu doy sëkk waaw effectivement jafe jafe-jafe bi foofu la am ndax euh, boo xoolee ñooñu ma tudd noonu euh, personnage yooyu ma tudd boo xoolee li tax seen euh, message jàll fépp ci àdduna bi ba nit ñi di leen jàppee comme modèle boo xoolee ñoom seen doomi réew ñoo leen njëkk valoriser ñun nag jafe-jafe bi ñu am mooy Sëñ Tuubaa ni ñu ko war a valoriser dëgg-dëgg ak message am bi ni ko war a valoriser dëgg-dëgg mm-hmm. ba mu dépassé frontières yi ba àgg ci tubaab bi ci langue yu wuute loolu moo des euh, ci missal maa ngi ci ñu ci waxtaan barki dem ci suñ euh, thème bi mm-hmm. euh, mbindum Sëñ Tuubaa nga xam ne Sëñ Tuubaa en terme de quantité mm-hmm. en terme de qualité amul ko bindul toll ne lim bind

nga xam ne li mu wax euh, ci ci ci ci masaalik boole koog li mu wax ci faneen ak faneen loolu lépp nga boole ko boole koog ni mu doxale moom comme ni mu doon yare ay nit xam nga ci économie dañuy wax ne nit ki euh, boo bëggee tabax ab dëkk ci nit ñi ngay tàmbalee mm-hmm. Sëñ boo xoolee li mu investir ci ci doomu aadama ak ni mu doon gore ay doon def mu doon yaatal ak ni mu doon euh, tabaxe ay nit di leen di leen xeertal ci ci liggéey ak ak jaamu yàlla boo jëlee ci misaal li Gànna Faal doon wax ci téeram boobu ne Sëñ Tuubaa dafa def li ñu naan euh, stratégie de ruralisation mooy dem ci àll ba gor ko euh, tabax ay nit ñooñu ñoo mujj ñëw ba ci ba ci milieu urbain bi mujj nangu économie économie dëkk bi. Mhm. da ngay gis ne suñ tubaab ma la lim théorisé waaye lim jëmmal rek ci wàllu économie loolu bu ñu ko jëloon euh, conceptualiser ko. Mhm. mu nekk la vision économique de Cheikh Ahmadou Bamba. macha allah xalaatkat yi doo leen déggati. ay David Ricardo yooyu nga xam ne. Mhm. David Ricardo boo xoolee tey jii di nga dem sax France xam nga David Ricardo anglais la. di nga dem France gis fa ñu tuddee. sen bop ay ricardien di nga dem Angleterre gis fa ñu États-Unis mhm. gis fa ñu tudde sen bop ay ricardien mhm. lolou liko waral moy dañoo lire ay théories de David Ricardo les théories économiques de David Ricardo lolou mujj leen dugg bañ mujj nek ay talibé David Ricardo ni ko noonu ci wàllu philosophie suñu tubaab lim ci jëmmal buñ ko buñ ko conceptualiser woon tamit di nga dem ba dégg sax nit la na murit laa waaye du ndax dama lire Euh, euh, sëñ Touba li lim lim euh, xalaat ci nangam ma gis ne xalaat bii dugg na ma doctrine bi dugg na ma ma mujj nekk ab murit kon da nga gis ne xeet yooyu jamono soxla na tey jii ñu conceptualiser ko ba mu law fépp ci àdduna bi nga xam ne àdduna bi dëgg-dëgg ni mu ci war a jariñoo danañ ko danañ ko jariñoo noonu mm, kon dal tënk bi mooy rek fexe ba conceptualiser ko wala concrétiser njàng mm-hmm. moomu mm-hmm. ba mu adopté wu ak fi àdduna bi toll ndax ñëpp mën a jariñ ci sëñ bi ndax ñëpp mën a jariñu sëñ cherché woo sax di convaincre nit ñi ci ñu mm. doon murit waaye mm. nañ jariñoo nañ jariñoo ci ci doonte seen mbiri àdduna la it ñu jariñoo ko loolu dana indi mm. stabilité dana indi kenn ku ne mën a dund ci jàmm mën a dem am développement personnel ak ci wet yëpp voilà léegi universalisation boobu mel na ne ñàkkut ne xëy na am na ay jéego maanaam te yow boo doon tënk réussite yi nga xam ne message bi am na ko lan nga ci indi waaw euh, message bi am na am na euh, universalisation di message de Cheikh Ahmadou Bamba jàpp naa ne am na ay réussite yu mag euh, ndax yoonu murit boo xoolee fi mu tàmbalee euh, maa ngi lire rek benn euh, document d'archive boo xam ne mm-hmm. ki ko bindoon ab tubaab la loolu jamonoy Sëñ Tuubaa la muy wax ne murit yi dañoo concentré wu ci wàllu Bawol te ñu ngi leen di ma ci soixante mille personnes nga xam ne boobu bëreeguñu woon mm, waaw te nee na ak ci rythme bi ñuy doxee nii xëy na du du yoon wuy yokk ndax tujjeeku wuñ nangam ak nangam wax ci def ci ba yu baree bari yoo xam ne moom daal li mu conclure mooy yoonu murit du yoon wu yokk mm-hmm. waaye boo xoolee bi ñu ko doon waxee ak ak léegi nii da ngay gis ne euh, faussé na analyse am ndax euh, yoonu murit euh, tey jii néew na ngay débarqué dem dëkk wolofisé gi mu gisoon a tax effectivement mm-hmm. waaw li mu gisoon nga xam ne murit yi dañoo tëju dañoo wolofisé seen seen mbir mi ba mu ëpp mm-hmm. waaye da nga gis ne loolu lu faussé la ndax yoonu murit am na ay réussite dëgg la am na lu bari lu ñu war a defaat am na ay effort yu war a defaat waaye am na ay réussite yoo xam ne def nañ ko ci cadre universalisation boobu ndax dana wàcc ab dëkk te doo fekk daayira murit mm-hmm. te daayira dafa am solo ci e, yaatal wooteef suñ Tuubaa ndax bu fi bu ko temps bi may woon sax ma indi historique bi e, e, na ci Sëñ Moodu Moustapha doxale woon nga xam ne au début c'était pour construire la grande mosquée de Touba te pour loolu il fallait ñu wut ay toolu àllarba. waaw ah, ñu toolu àllarba xëy na historique gu dayre sax mm-hmm. foofu la tàmbalee. la fa doon jugee ñu koy jëlaat di ko defaat ci. Euh, ci jumaa ji ñu dem ba suñu seex amaat ci taxawaay bu am solo ci indi ko ci concept boobu mu indi ko ci euh, ci ci ville yi indi ko ci milieu urbain bi ba mujj nekk ay daayira léegi nag euh, au début des années soixante-dix murid yi bi ñu commencé di émigré wu Euh, ñu mujj am ay daayira fépp ci ci ci àdduna bi ak taxawaay buñ dem buñ doone ñaar ba ñatt sénégalais. voilà dal di construire ben association bo xam moy représenter daayira. ñaan mm. xam dina am njariñu mm. retrouver seen i valeur effectivement ak tamit dund seen spiritualité xëy wa dund seen spiri euh, spiritualité euh, retrouver seen i valeur xamante ci seen biir di mm. jëflanté di jàppalante waaye di dajalé addee jo xam dañ koy yobbu touba nga xam moy fa la khilafa gi nek nga xam ne loolu boo ku melna ne sëñ Mourtala am na taxawaay bu am solo bo xolé ku melna ne sëñ Abdoulaye Dieye tamit nga xamne bo deme France dafa naa mooy ko fa njëkk taxawal daayira étudiant mourid non la tambalé balaw balaw fep ci aduna bi nga xamne ne daayira yi tamit bokku na ci réussite yu yoon mourid ndax bari na ñuy dugg ci yoon mourid ño xamne ci daayira la ñuy jaar waaw effectivement lu melne Euh, kër Sëriñ yi tamit bokk na ci les réussites de cette universalité ndax euh, néw na ngay dem ci am réew moo xam ne doo fa fekk doo fekk Sëriñ Touba euh, ku mel na si Mortala moom it am na ci taxawaay bu am solo ndax bari na bari na ñuy tuub ñoo xam ne bu ñuy tuub ci kër Touba yi lañ leen di yóbbu ñu tuub suivi tamit foofu lañ koy defee ndax mbir mi du du gi rek du convertir ay nit rek waaye suivi bi tamit suivi ba ci war lu ci ëpp ci Touba lay doon nga xam ne bokk na ci Euh, mooy fu ñu dem rek def fa seen seen euh, tabax fa seen empire. ñu wax construire euh, empire boo xam ne dana dana la juralaat yeneen ak yeneen boo jëlee fu mel ne France rek gis nga Kër Sëñ Tuubaa yi ni muy tàmbalee law nga xam ne daanaka ville yu bari ku ci amul Kër Sëñ Tuubaa tamit. yaa ngi koy wut mm-hmm, mm-hmm. boo jëlee lu mel ne mbindum mbindum Sëñ Tuubaa bi tamit bokk na ci li nga xam ne yoonu murit réussir na maanaam dëgg-dëgg universalité boobu. Mm-hmm. jaar ko ci mbind mi ndax. Euh, mbindum suñ suñ Tuubaa bi ku ne xam na ne suñ Tuubaa ni ma ko waxee léegi euh, bokk na ci écrivain yi gën a prolifique ci histoire. Euh, ci lim bind lim bind rek ci wàllu quantité ak ci wàll qualité nga xam ne bari na ñoo xam ne ci mbindam mi lañ ko lañ ko xamee. dëgg la am na lu bari lu mu des war nañ koo gën a traduire ci ci langue yëpp waruñoo yam ci traduction bi rek mais war nañ koo expliquer ndax xëy na traduction bi rek. Mm-hmm. du doy ci nga jëloon euh, benn xasi rek euh, tasawuri euh, si xaar rek jox ko benn benn tubaab mhm. di ko di ko liir la amaana boo ko expliqué wut mhm. mën naa bañ a mën naa bañ a comprendre dëgg dëgg jàngale la effectivement traduction bu ànd ak jàngale Mortada moom nga wax sax hmm. radiyallahu anhu hmm. mel na ne moom dafa déggoon lool sax li ngay wax nii ci ne mm. sëñ bi message universel bi mu yor da koo mm. doon ci yonent bi ndax gis nga kër sëñ Touba yooyu ni mu ko mm. daan woowee waaw waaw mooy kër lislaam waaw kër lislaam bi mu ne la mooy lislaam mooy lislaam waaw am ne kon moom ku déggoon woote bi la te it ko amoon yéene message bu sëriñ bi nekk lu universel la. effectivement waaw ah, nga xam ne moom jàpp na ne jàpp naa ne bokk na ci ñi ci njëkk a dox. ay ah, jéego mooy symbole bi mën nga ne kay. waaw mën naa ne mën naa ne mooy symbole moo tax sax ci livre bi maa ngi ci ñëwaat ci biographie am. Mhm. di wax dëgg-dëgg moom ban taxawaay la am ak lan ban rôle la joué. ci euh, universalisation boobu. boole ko tabaxi école. tabaxi école boole ci. Mhm. nga xam ne ne jàng moom le savoir était vraiment au cœur. du projet de société de Cheikh Amadou Bamba. Mhm. Euh, fépp ci Sénégal bitim réew tamit mu dem euh, taxawal fa ay ay ay kër Sëriñ Tuubaa ba noppi daan nañ ubbeeku dañ mm-hmm. ko bañ a yemale ci suñ biir ba noppi doon tàggat murid yi ci euh, ñu conformé wu ci norme ak standard yi réew seen seen pays d'accueil ndax bari na murid yoo xam dañuy dem bitim réew rek tàmbale nekk ci mbedd mi def comme yi ñuy def bu nekkee Tuubaa jaay ci mbedd mi waaw xeet yooyu waaw suñ motulaa nag ne leen bu ngeen nekkee ci réewum jàmbur da ngeen fexe ba mm-hmm. Euh, waa réew ma nañuy doxalee maanaam ci euh, bu ngeen di ñëw da ngeen di àndaale seen valeurs yi nga xam ne moom ngeen jëlee euh, seen seen réew. Mm-hmm. moom ngeen jële Touba. Mm-hmm. maanaam jikko yaag. diine jaag lu baax lépp ngeen àndaale ko. Mm-hmm. waaye nag fexe ba tënku tamit ci ñoom liñ tëral ci wàllu ay normes. moom liñ tëral ci réew mi waaw. nga xam ne loolu moom suñu Mourtala yàgg na ko def ci ci ci bopp nit ñi ba noppi ne leen nag bu ngeen di woote woote leen lislaam. kër Sëriñ Touba yi tamit tudd leen ko ay këri lislaam. te lu ngeen def bu leen ci dugal ak jeng nga xam ne moom vraiment ori joxe na ay orientation yu bëree bëree bëree bëree bëri ci dëgg-dëgg naka la ñuy def ba yaatal yaatal woote Sëriñ Tuubaa ba noppi bu mu pratiqué ci lu bëri ndax bëri ñu euh, tuub nekk ay jullit nekk ay murit li mu tuubal ci ay nit ci ay tubaab ak naar kenn xamul ni mu toll te ci moom la jaare te ci moom la jaare kon jàpp naa ne mhm. euh, réussite yooyu tamit ku ci mel na moom euh, am na ci taxawaay ba loolu jur na Euh, maa ngi koy wax barki démb rek rue boobu ñu tuddee Mouridi. Euh, mm-hmm. France ba fa demee am na rue ba waaw ca Beauvais. Mm-hmm. nga xam ne dans le 60 la nekk dans le département 60. Mm-hmm. Euh, à quelques 70 kilomètres de Paris. ba fa demee di nga fa fekk benn rue boo xam ne Mouridi lañ ko tuddee. man bi ma demee def samay recherche. ci laaj gan Mouride la ndax comme mosuma ko woon a dégg te mosuma ko woon a xam. te bokk naa ñi ko njëkk a découvrir. Euh, bi ma ko laajee waa réew bi ñoom xamuñ ko ma dem ca commune bi laaj leen gan gan euh, murit la ñu jox ma ay référence yoo xam ne ba ma ca delloo dama gis ne effectivement dans les années 50, mm-hmm. dafa am benn contribution financière boo xam ne murit dañ ko defoon. Mm-hmm. ngir jàppalee ko français yi boobu c'était euh, dans le contexte